masaw ñi nga xam ni ñooy famille yu victime yi di masaw ñi nga xam ni ñëpp mbir mi ba mu amee ba léegi tooguñu te yéen journalistes yi ngeen njëkke si waaye aussi di jaale kilifa diine yi di ko teg jaal boobu suñu xalif général des Tidianes muy sëriñ Babacar Sy Mansour li tax nag tey ñu woote conférence de presse bi mooy déjà ci suba ba léegi yéen a ngi dégg ay autorité ñuy wax et dafa am solo les citoyens ñu dégg leen ñu joxe ñoom seen yëg-yëg waaye aussi joxe li ñu namm ci mbir mi moo tax tey ci ñu ngeen gis ñu toog fii am na ci ay conseillers municipaux am na si ñoo xam ne c'est des chefs d'entreprise am na si ñoo xam ni dañ leen a xam ci xeex fii ci Tivaouane ci lépp luy ak ak yelleef te ñu doon wax ci hôpitalu maam Abdou Aziz Dabakh waaye am na aussi citoyen ordinaire ñoo xam ni ba ñu yëgee mbir mi dañoo ñëw greffé ci li nga xam ni moom la ñu namm sum waaye aussi am si ay jigéen ñu am taxawaay ñoo xam ni nag ñoom dund nañu lu metti ci hôpital bi te dinañ ci ñëw waaye aussi ñu doon ay femmes de développement ñoo xam ni nekk nañu si ay réseau jigéen xam nañu bu baax lan la hôpital bi am njariñ ci su population bi waaye lan moo fay sooxe moo tax ñu woo presse bi pour communiquer ak ñoom waaye aussi baaxe leen benn collectif boo xam ni citoyen boo xam ni mbir mi moo ko tax a jug ndax ba ci suba ba léegi yéen a ngi dégg ay autorités ñuy wax pëccëxoo am na sax ci communication bi ci ay autorités yoo xam ni jàpp nañu ñi ñenn ñi dañoo bëgg nëpp nëppal mbir mi te nag lii fi am Tivaouane dafa war a servir d'exemple Sénégal gépp bërki démb ñi ngi wax Louga daaw ñi ngi doon wax Linguère tey ñi ngi naan Tivaouane ëllëg dañu naan fan kon defe naa ni tey lii nga xam ni moom mooy bébé yi nga xam ni ñàkk nañu leen mu doon lu metti trop seen dem warula nuul seen dem war na servir d'exemple seen dem war na permettre tey ñu régler li nga xam ne nii moom mooy problème de la santé moo tax ñu ni tey dinañu jàkkaarloog yéen balaa ñoo tàmbali nag duñ def lu dul massawu famille yi nga xam ni tey ñoo ñàkk seen njaboot ci mbir mu tiis mi xew fii ci Tivaouane te mun nañ ni wër na àdduna wërngal këpp ndax média yi gën a ci àdduna bi teew nañ fi pour couvrir événement bi wax ci donc euh, loolu di wane ni rek lu doy waar la te c'est un fait bu nga xam ni mosul am donc lu mosul am nag bu amee faaw forcément ñu jël ay mesures yu nga xam ni musul am aussi parce que comme ni ko alin ba dara waxee boobu ba léegi ñu ngi dégg ay sorties mais sorties yi ñu dégg yëpp c'est des sorti des autorités, surtout les autorités politiques. Et dans tout ça, c'est le citoyen qui est au cœur de cette histoire, qui est au cœur de cette affaire. ndax hôpital bi bu ñu fàtte ni ñun ñoo fay dem di fa faju ak suñuy njaboot jiitu tey jii ni buñ ne patient en danger collectif bu national la bu constitué wu te collectif boobu ñi ko taxawal mais ñi ngi Ndakaaru ñi ngi ci yeneeni région tey nag Tivaouane bi mbir mi amee suñu réaction dafa nekk une réaction citoyenne spontanée ndax Alioune Badara wax na ko ay chef d'entreprise ay responsable politique ñi ngi fi ay homme de médias ñi ngi fi mais casquette yooyu yëpp dañ ko jël teg ko de côté taxawee fi comme ay citoyens tout simplement sénégalais yu nga xam ne gis nañ ni am na un péril qui fonce vers nous et que par conséquent war nañ ci taxaw wax ci parce que tamit am na fu mbir di toll ku artuwul rek après sa kaw la jëm loolu moo waral tey jii ñu taxaw le collectif patient en danger section Tivaouane nga xam ni nag dafay affilié wu à l'organisation au niveau national di leen soutenir ci lépp lu ñuy def mais prétexte bi nag moom mooy lii xew ci hôpital Mame Abdoulaye Sy baax ba tax na mën nañ ni suñu stratégie lépp dañ koy tënk ci ñetti ponk bi ci jiitu mooy en tant que citoyen suñu droit la ñu exiger toute la lumière sur cette affaire la ñu xam lan moo xew ñu wax ñu exactement quelles sont les responsabilités ça c'est un minimum bu nga xam ne en tant que citoyen war nañ ko mën a exiger beneen dernier point bi nga xam ni tey jii collectif bi dina ko revendiquer mooy l'accès à l'information ndax yéen ñii di ay taskatu xibaar umpulewu leen ni ba mbir mi amee ba léegi ku nekk mi ngi avancé say bilan di avancé say chiffres mais xamaguñu exactement bilan bi nan la demee am na des chiffres officiels mais exactement boo jëlee les témoignages ñi nga xam ni ñoom ñoo fekkee mbir mi dafay contre contredire ces chiffres officiels donc war nañu wax exactement c'est quoi la bonne information te loolu aussi suñu droit la bokk en tant que citoyen tiis bi lu lu lu lu am na mais mënoon na ñàkk mënoon na ñàkk parce que lii dañ ko dañ ko doon ñaxtu di ko wax hôpital Tivaouane bi à chaque fois ñu naan hôpital hôpital Tivaouane bi manqué na lii manqué na laa mais état duñu déglu état nag dafa war a agir de façon prévisionnelle moo gën ñuy réagir à chaque fois réagir def enquête ne dinañ situer les les responsabilités nangam nangam bàyyi ba kañ démb Linguère barki démb euh, Richard Toll xawma hmm. ak ak Louga tey Tiwaawan suba kan la hmm. suba kan la ñun jigéen ñi ñun ñooy dem hôpital ñun ñoo xam li nekk ci hôpitaux yi boo fa demee boo yoree malaat sax da ngay naxanteeg malade bi naxanteeg malade bi ba sa soog koo yóbbu parce que xam nga xam nga li nga fay fekk amul matériel personnel de santé bi c'est à revoir accueil bi tamit même chose matériel amul léegi nag lu ñu bëgg lu ñu bëgg état boo xamante ni lu ñu wax soo waxee si loola naqari ñu ne day politique non non état dafa war a dafa war a prévoir dafa war a jàppale peuple am dafa war a saytu li mu war a def mu def ko mais politique politique politique rek tey boo kaasee ñu ne diw dafay politique wala dafa bëgg poste non ñun ñoo koy dund. bu ngeen xoolee ñun li ñu toogee ngeen xam ni métti nañu trop li tax mu métti ñu. c'est pas parce que dañoo am ay njaboot direct ci ñooñu mais dafa di loo xam ni duñu wax on voyait venir mais doon nañ artu avant lii lépp di am te ñu tey rek taxaw fii di wax on a été à l'hôpital pendant des années di xeexal hôpital bi loo xam ni dara du lenn loo xam ni duñu wax ñu dugg suñu poche mais ay qualité de soins dañu doon laaj hôpital bi hôpital bi yéen a ngi dégg ni ñu naan niveau 2 niveau 3 nañu xam ni hôpital bi niveau 2 bi tur la rek niveau 2 dafay ànd ak budget d' accompagnement le budget d' accompagnement de l'hôpital àggagul niveau 2 kon état daf ñuy fowe beneen bi le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñëw na fi devant le xalif xalif bi tenir ko ay propos mu tenir ay promesses ba nii ñuy waxee yéen dara amu ci hôpital bi on a perdu un ami un frère koo xam ni personnalité woon Tivaouane il s'appelait Matar Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm fa mu nekk défaut d'ambulance médicalisée fii bloc banque de sang bi amoon na ay ay mort yoo xam ne dafa amoon ay conflits amoon interne ñoom seen biir suñu taxawaay moo tax di remercier encore docteur Sakho ba mu accordé ñu ubbi banque de sang bi nit ñi di mën a liggéey normalement hôpital Tivaouane moo polarisé le département bi nga xam ni moo gën a riche en ressources minières du pays ICS fi la nekk GCO e fi la nekk euh, euh, kii fi la nekk centrale éolienne benn centrale éolienne moom Sénégal Tivaouane la nekk kenn ten Médina Sinthiou Mekhe cent ay centrale solaire la ñu am doole mooy yi ñaan seen ant Cheikh Anta Diop Tivaouane la ñu nekk Cefos Tivaouane la nekk Tobin Power Tivaouane la nekk amuñu ñoom mënuñu sax offrir une ambulance mu mënuñu sax offrir des bâtiments ak des du matériel bi nga xam ni moom la ñu soxla dans l'urgence te te ICS bu ngeen xoolee ñoom seen i malade ils ont préféré yóbbu leen à Thiès dans des cliniques seen euh, préférence maladie yooyu noonu di ko yóbbu à Thiès di ñu tëb milliards yooyu ñu ko yóbbu Thiès te c'est ñun la ñuy impacté directement suñu ay suñu ay grand ñoom ñooy feebar ndax poumon yi bu ngeen demee ngeen xool cardiologie seen maladie pulmonaire yi mu fa baree te ñooñu noonu ICS moo ñu ko teg te ñoom nee noon duñu fajoo fii nee duñu def fi seen xaalis état di seetaan sëriñ bi wax état di seetaan ñu jóg di wax population bi seetaan tey lii am ñëpp bëgg a jóg ñëw ku ci nekk nag yor sa làmmiñ di wax nu di wax na ko bëggee bëgg a jël wax ji ba ko xëpp ñii ba ko xëpp ñee ñun nag ñuy attirer attention population bi bu ñu nangu kenn naan ñu faute bi ñeera du ñii bu ñu nangu kenn naan faute bi bokkuma ci ñee la ñun ñëpp dañ jàpp ni faute bi ci ñun la ba keroog enquête bi leeral fan la ñu ngi saluer attitude du procureur de la République Abdoulaye Ba et de son substitut procureur Babacar Diop ils ont tenu deux discours responsables li ñu wax moo dalal son xel ñun nee enquête bi dañu koy topp ba mu leer ñun waxuñu bu ñu ko topp waxuñu nañ jàpp diw nañ jàpp diw parce que bu fekkee da nga bëgg a toog nga ni non non kii deful bu ñu ko jàppee doomu jàmbur la bu ko jàppee papay jàmbur la bu ñu ko jàppee liiwu jàmbur la xamal ni ña nekk ci kaso bi ay doomu jàmbur lañu ay papay jàmbur lañu ay frère jàmbur lañu c'est pas nit ki la ñuy sanctionné mais faute ba mu def la ñuy sanctionné ñu demandons enquête bi àgg ba fa mu war a àgg mu leer nañ bopp ñi nga xam ne nag ñu ngi dugg ci dëkk bi am na di jox ñi nga xam ne ñoom lañu dañoo ñàkk seeni doom kaalis loolu c'est totalement irresponsable parce que bu fekkee dañoo yaakaar ñun waa Tivaouane suñu dund xadar lañ ko wékk suñu dund dem jàkkaarloo ko wéeg il se trompe parce que 11 yooyu dem Macky Sall xajoon na ci. 11 yooyu dem un ministre de la santé waxuma Abdoulaye Diouf Sarr un ministre de xajoon na ci ñu 11 yooyu dem un député xajoon na ci ñu pourquoi ñu xañ ñu suñu 11 personnes yooyu noonu parce que ay personnes lañu pourquoi ñu xañ ñu ko pare dañu yow naan dañuy jox ay un million pour lan au nom de quoi dafa teel nañu bàyyi gars yi ñuy war a enquête enquête il faut que ñu vivre en paix parce que boo yi dem. ils auraient aimé vivre en paix mais maintenant dañoo naan reposer en paix au nom de quoi est-ce que seen famille nañ de dinañ continuer vivre en paix drame bi lu metti la j'ai pas les mots je vais m'en balaa may wax loo xam ni il faut que ñu nangu ko l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane est à l'image de tous les hôpitaux du Sénégal ñoom ñëpp ñoo bokk jàngoro ñun nag yàlla dogal na boo gisee ñu ñëw toog fii di wax ñi fi toog ñëpp tey ci table bi ça fait des mois ou bien des années on a alerte alerte et encore alerte par rapport à ce qui se passait et encore ce qui se passe dans cet la là suñu juumul toog nañ fi ay weer ci ginnaaw am nañ fi problème mu ophtalmologue boo xam ni quatre ou 5 mois ti woon département avec ses 18 communes amuñu ku leen toppatool seen ay bët ñun ñii ñëpp ñoo jug porter combat bi dem ci autorité yi def ci ay live fu nañu yuuxu fa ba problème bi saafarawu à moitié ñu ne deete waaye ñu xëy xëy quelques jours après ñu ne keesu hôpital Tivaouane nee na may xaalis ba nee na may quelques jours après laa wax comme si y avait des fantômes qui vivaient dans cet hôpital là bien qui sont en train de vivre dans ba fi toll nii lu ñuy wax police dem na fa def na enquête préliminaire l' enquête suit son cours ñii nee nañ 5 ñii nee nañ 6 millions 6 millions ba léegi xaalis boobu mënuñ ñoo wax fu mu dugg ñun li ñu tax a àdduloo mooy on a été à l'hôpital démb de 21 heures 30 à pratiquement 5 heures du matin tout sa qui s'est passé là-bas pratiquement ñun fa la ñu fekk mais li ñu metti mooy li xew tey du tey la nuyoo yàgg naa nuyoo mais dañ ko faalewul woon ñun ñii ñépp alerté nañu hôpital Tivaouane Aline Badara wax na ko sànq Mansour wax na ko sànq ñun on a perdu quelqu'un de très près mais suñu nee quelqu'un dañuy jël généralité bi lan moo ko yóbbu dafa toog ci bërëbu liggéeyu kaayam jékki-jékki crise d'asthme attaqué ko ñu jagat-jagate ko yóbbu ko hôpital Maam de baax ñu ne amuñu oxygène vous vous imaginez ci vingt-et-unième siècle bi ñu ne ñu ne amuñu oxygène bu ñu ko tafal ci bakkanam pour mu noyyi le temps que ñu koy évacuer sur Thiès bakkanam ron na démb bi ñu fa bi ñu fa taxawee am na suñu benn grand frère bi nañu sama petit sama petite sœur elle a failli mourir lu tax parce que feebar na ñëw ñu war koo jox deret man ma ñëw taxaw maag sama frère pour jox ko deret ñu ne amuñu kit kit kit mbuus mbuus poche poche poche yi ñu lay sampal pour jël sa deret jox ko ki nga ko war a jox amuñu ko ñu jóge fi jël ndaw si yàpp ko ci ambulance yóbbu ko Thiès hôpital régional aussi ñu ne amuñu mbuus amuñu poche ñu déparat ne nañ jàpp ci yàlla ñëwaat Tiwaawan bi ñëwee ba tolloog raayu Madina Fall kenn ci ñi mu àndaloon woo benn copain boo xam ne day liggéeyee hôpital Saint-Jean-de-Dieu kooku moo leen ne retourné leen ñëw mu may leen quatre poches quatre poches yooyu lañ jël indi ko hôpital Tiwaawan pour ñu mën a sauver bakkanam ndaw si mais bu vous imaginez ay poches ay poches hôpital Tiwaawan moo gën a feebar patients yi koy fréquenté la khalife général des Tidianes ñaata yoon la ko wax def na ci discours devant le ministre de tutelle 2019 il a fait le même discours devant le ministre de tutelle wax ko ni na améliorer plateau technique bi wax ko ni nañu affecté ay spécialistes ci suñu hôpital bi mais jusqu'à présent zéro le ministre Abdoulaye Diouf saar nag tey ñu wax ko fii ñun am lu ñu fi ragal parce que Tivaouane rek moo ñu tax moo ñu tax a jóg ñun ñëpp il n'a jamais tenu benn promesse am bu mu mës a defal Tivaouane ci wàllu santé mosul am kon lii de grâce bu ñu ñëw naan ñu situé nañ responsabilité yi euh, euh, euh, administration sanitaire hôpital ba ñoo fautif nag kenn ku nekk jël say responsabilité ci cas bi ñun jàpp nañ ñi responsabilité état moom mooy mu occuper bépp hôpital bépp dispensaire bépp case de santé bu nekk ci réew mi ci matériel bu doy responsabilité état moom mooy mu fexe ba yónnee hôpitaux yi dispensaires yi case de santé yi de santé yi personnel bu doy mais loolu amul Sénégal tey Tiwaawan la barki démb Linguère la woon démb Louga la euh, barkaati démb euh, euh, Kaolack la tey Tiwaawan la suba fan la suba fan la personne ne ñun nag li ñu bëgg mooy en tant que colif collectif que ça cesse dafa doy